C'est bon 30 secondes. Déclenché. C'est bon

dans le calme et la sérénité. Preuve de sa maturité et de son attachement aux règles démocratiques et au suffrage universel. Cette voix du peuple sénégalais reste la seule vérité. C'est la raison pour laquelle son expression libre doit être protégée et défendue. Malheureusement, plusieurs entraves dans le dispositif électoral et de nombreuses tentatives de détourner les citoyens de ce moment décisif dans la vie d'une nation visant à protéger, à porter préjudice à la libre expression du suffrage ont été enregistrés. Ce scrutin a été piégé en amont d'abord du processus électoral, conduit de façon cavalière et au cours des opérations électorales notamment par la création illégale de bureaux de vote, y compris le jour du scrutin, le dépassement du nombre d'électeurs par bureau, le gonflement artificiel de la population électorale et d'autres illégalités sur lesquelles le directoire de campagne reviendra plus amplement. Même si nous saluons la forte mobilisation de l'opposition et des électeurs acquis à notre cause, Force est de constater que des milliers de Sénégalais se sont vus privés de leur droit de voter. Des milliers d'autres ont, été, ont vu leur bureau, de vote, être changé à la dernière minute. De surcroît, certaines mobilisations observées durant cette campagne auraient empêché, auraient justifié que le président sortant, candidat à sa propre réélection, soit tenu en balotage aux quatre coins du Sénégal par une opposition, certes limitée dans ses moyens financiers, mais qui s'est vue propulsée au devant, dans les régions les plus stratégiques d'une élection, par un peuple conscient et intégré, dignement déterminé à rompre les chaînes d'un système terni par tant d'années de corruption au détriment des couches les plus vulnérables du Sénégal. Malgré tout, nous constatons que le président sortant est déclaré élu dès le premier tour à 58,27%. C'est donc tout naturellement que tous les candidats de l'opposition, les quatre candidats réunis, ont rejeté ces résultats. Le triomphe restera sans gloire et se tenir prêt. Il convient donc dans l'urgence absolue que l'opposition exiger et obtenir les réformes indispensables pour consolider la démocratie dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Permettez-moi donc, chers hommes et femmes des médias, vous à qui je rends un hommage pour votre dynamisme durant cette campagne, en particulier ceux qui m'ont accompagné. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous réunit ici aujourd'hui. dans un climat pacifique et qui nous a donné la force, l'énergie et la santé d'aller à la rencontre à la rencontre de nos compatriotes aux quatre coins du Sénégal durant cette longue campagne électorale. Pendant des semaines, nous avons parcouru l'étendue du territoire sénégalais pour nous rendre compte davantage du potentiel immense de nos terres, même arides Mais surtout, nous avons constaté de visu la bravoure de nos chers compatriotes, jeunes, âgés, moins jeunes, hommes, femmes, partout, le citoyen sénégalais s'est distingué par sa détermination à surmonter les épreuves du quotidien pour subvenir aux besoins de sa famille. Que ce soit la femme qui marche sous le soleil des kilomètres pour puiser de l'eau pour le repas de midi ou simplement pour arroser son champ, L'élève qui parcourt des kilomètres le montre vite pour arriver épuisé en cours. Les braves ouvriers qui, malgré la pénibilité de leur métier, refusent d'abandonner. Partout, nous avons vu la souffrance, mais nous avons vu aussi l'espérance. Jusqu'à des heures tardives parfois, parfois même jusqu'à 2 heures du matin, notre combat a été accueilli par des milliers de Sénégalais assoiffés de changement. de Dakar à Bignona, de Thiès à Matam, de Dagana à Kédougou, nous avons entendu battre le cœur du peuple sénégalais. Partout, notre constat a été le même. Les Sénégalais sont dignes, les Sénégalais sont braves, les Sénégalais sont tenaces, les Sénégalais sont courageux et ce, malgré la misère, malgré la difficulté, malgré l'inquiétude dans laquelle le système les a oubliés. J'aimerais avant toute chose vous exprimer toute la fierté que j'ai d'appartenir à ce peuple. C'est mon envie de voir ce peuple sortir de la précarité qui explique tous mes combats, tous mes sacrifices. À ce peuple sénégalais d'ici et de la diaspora, j'aimerais transmettre mes remerciements les plus émus face à leur engagement sans faille, leur courage, leur abnégation, mais surtout pour leur soutien indéfectible je leur, je, leur, je leur en serai éternellement reconnaissant. Et je prie le bon Dieu de les aider à surmonter tous les obstacles à leur réussite par la voie du travail et de la foi. Prenant en compte le bien-être des Sénégalais et des Sénégalaises, seule finalité de mon combat politique, je voudrais rappeler que nous avons toujours tenu à proposer au peuple sénégalais un projet de société fondé sur les exigences de la démocratie, de paix et de développement durable dans la transparence et le respect de l'éthique républicaine. Nous l'avons largement développé durant la campagne électorale et des centaines de milliers de nos compatriotes d'ici et de la diaspora ont porté leur choix sur nous, exprimant ainsi à la fois un formidable satisfecit et une invite solennelle à poursuivre le combat dans la voie que nous avons empruntée. Nous ne les décevrons pas. C'est donc le lieu pour moi de réitérer mes remerciements et de féliciter tout d'abord l'ensemble de nos électeurs, notamment les militants et sympathisants, les jeunes en particulier. En plus de porter leur choix sur nous, ils ont fait preuve d'une affection touchante, d'une confiance rassurante et d'une détermination sans limite pour faire triompher notre cause commune, n'hésitant pas à mettre leurs maigres moyens financiers et matériels pour prendre en charge les besoins de la campagne électorale. Je profite, je profite de cette occasion pour le réitérer mon engagement à leur côté pour l'émancipation économique du Sénégal et le progrès social de la jeunesse. J'aimerais m'arrêter quelques minutes sur cette tranche de la population dont la mobilisation historique aura permis de dépasser le seuil des 60% de participation. Leur mobilisation citoyenne, je dirais même patriotique, au cours de ces élections à démontré à suffisance que la jeunesse de notre pays de plus, est plus que jamais déterminée à jouer sa partition dans la construction d'une nation forte, souveraine et intègre. J'aimerais les féliciter, j'aurais aimé le faire individuellement, les saluer personnellement car j'ai été profondément touché par leur bravoure durant cette campagne. Ils ont frappé à des portes inconnues Ils ont appelé des numéros inconnus. Ils ont été les vrais acteurs de cette campagne et c'est eux qu'il faut féliciter. À cette jeunesse de mon pays, j'indique l'avenir radieux qui les attend, sous peu de temps, bien évidemment. Je leur demande de continuer à croire en eux, en leur pays. Je les exhorte au travail, à la citoyenneté, à l'excellence académique. Et je leur demande de mettre également cette énergie patriotique au service de leur communauté afin qu'ils puissent aider à l'essor de leur terroir, de leur localité. J'aimerais remercier les femmes qui ont été des milliers à nous soutenir. Elles sont braves, elles sont courageuses. Elles sont nos mères, nos sœurs et nos épouses. Nous continuerons à nous battre pour elles. Je tiens à remercier la diaspora, ces Sénégalais vivant à l'étranger, mais œuvrant à l'intérieur du pays à des niveaux insoupçonnés. Ils sont généreux, leur cœur bat pour le pays. Ils vivent pour leur famille. Nous devons davantage les accompagner et ils continueront à inspirer mon combat. Nous avons remarqué que dans leur cœur et dans l'expression de leur suffrage, la dose patriotique s'est exprimée plus que dans toute autre catégorie du Sénégal. À tous, J'exprime mes sincères remerciements pour votre soutien infaillible durant cette campagne. Et j'entends dans les jours à venir me rendre personnellement auprès de chacun d'entre vous dans le cadre d'une tournée nationale et internationale pour renouveler et raffermir le pacte patriotique qui nous lie. Permettez-moi également de remercier les grands acteurs de cette campagne. Oui, il me plaît de magnifier l'apport positif des membres de la coalition Sonko Président et de tous nos alliés, affichés ou non, pour leur conviction, leur loyauté et leur engagement sans faille pour un projet commun. Quant à l'équipe de campagne, dans ses différentes composantes, de l'équipe administrative à l'équipe technique, l'équipe sur le terrain, tout le monde, par son dévouement et son engagement, cette équipe a fait preuve malgré la modicité des moyens financiers et matériels, d'une intelligence et d'une dynamique unitaire pour faire admettre la pertinence de notre projet et les énormes potentialités de l'équipe qui le porte. Merci à eux de s'être engagés à mes côtés et d'avoir vécu pleinement cette campagne mémorable. Au vu de l'immense espoir suscité par la démarche, qui épouse parfaitement le désir de changement et le besoin de rupture, avec des politiques publiques désastreuses au plan économique, social, politique et des valeurs, je comprends aisément leur légitime déception. Mais je leur demande de relever la tête, car nous devons être tous fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Nous devons être fiers d'un bond exceptionnel et inédit réalisé entre les élections législatives de 2017 de février 2019. Si cela a été possible, c'est parce que vous avez fait preuve d'un don de soi inédit. Je vous demande surtout de garder foi en notre cause. L'avenir, c'est maintenant. Cet avenir, si nous le voulons radieux, nous devons le préparer dès maintenant, en faisant preuve d'une grande capacité d'organisation et d'ouverture. Ainsi, l'espace suscité par notre ligne politique sera entretenu, sera entretenu, consolidé et transformé en force décisive pour les prochaines séances électorales. Grâce à vous, cette initiative est devenue une force politique incontestable. J'invite donc tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises patriotes à nous rejoindre pour parachever la marche vers la vraie rupture. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, le combat continue. Nous devons garder le cap avec la même conviction, les mêmes valeurs, les mêmes principes et le même engagement. Vive Sénégal, vive le peuple sénégalais. Je vous euh, je vais essayer de résumer succinctement en wolof di gërëm ñi fi teew ñëpp di nuyu mbokk Sénégal yëpp kenn ku ci turam ak ci santam di wax ni dañoo génn ci lu am solo ci dundum askan muy élection bi ñu waroon tànnee ki war a jiite réew mi ci juróomi at yi ñu jëm commission nationale bi nga xam ne nag mooy saytu wot bi walla mooy dajale lim yi wax na démb ay résultat provisoires waaye gis nañ ni élection bi bu amee ak bu jaaree ni mu mel li ko gën a waral mooy taxawaayu askanu Sénégal bi li ko gën a waral mooy taxawaayu suñuy kilifa diine ak kilifa aada ci dalal ñépp askanu Sénégal ci taxawaayam wanati na àdduna yépp ñor gi mu ñor ci li jëm ci démocratie amul kenn ku ci gën a ñor askanu Sénégal waaye nag ñun dañoo jàpp ni kàddu askan wi nga xam ne jamono ju mel nii rek la ko askan wi mën a biral loo xam ne la la lu ñu war a sàmm la waruñoo may kenn mu am sañ-sañ ba wëlbati kàddu googu wala mu jëmale ko fu wute ak li nga xam ne mooy mbébétu askan wi walla mooy bëgg-bëgg askan wi gis nañ ni am na yu bëree bëri yoo xam ne am na ci njëlbeenu élection bi waaye ci biir élection bi yoo xam ne tey xajamal na mbir mi ñu ràññee ci yooyu taxawaay bi nga xam ne balaa élection bi di am nguuru candidat sortant di Macky Sall amoon na ko ci doxal doxalinu boppam moom dong li ñuy tuddee processus électoral waaye gis nañu it bésu vote bi lii nga xam ne ci ay centre yu ñu yu ñu taxawal la te jaarul yoon wala ay centre yoo xam ne lim ba ëpp na li yoon mais wala li ñuy wax transfert d'électeur bëri na sénégalais yu jóg war dem wote te ñun ñëpp xam nañ ni wat constitution muy ndeyu charte réew mi moo ko may kenn ku ne amul kenn war am sañ-sañu tere benn sénégalais sax mu wote mu bari sénégalais yu taxaw xëy ci suba dem ne dañuy wote ñu ne leen bu ngeen wote ndax bokku leen ci liste yi te boobu jamono seen carte d'identité dugal na leen ci liste yi ba joxañal leen bureau de vote bi ñu war a wote yooyu yëpp nag moo xajamal élection bi ba tax biñ ci gis génnee mbooleem seen candidat opposition yi te muy guléet Sénégal wala daal gëjoon nañ ko dégg diggante 2000 ak tey guréel Sénégal ñu génn ci élection ñi doon jàmmarloo candidat sortant bi yépp kenn nangu ci reconnaître élection bi waaye kenn nangu ci jël téléphone am woote mu ngay félicité muy guréel ci Sénégal lool li mu firndeel mooy mbir mi xajam na ba noppi am na lu ci ñuul ñu gis ni nag ànd ak loolu lépp ci lañu gis ci ay tolof tolof ñoom démb génne nañu ndogal jox président bi nekkoon fii jox ko ndam ne téeméer bu nekk moom am na lu ëpp juróom fukk ak juróom ñett yoo xam ne am na ko ci moo tax nag ñu ñuy woo opposition bi yépp gannaaw bu ñu sargalee ñeenti candidat yi ndax ñàkkul ay pexe yu ñu doon def pour mu am kenn ci ñoom kuy gaawantu àddu nangu résultat yi wala mu jël téléphone woote waaye amu ci kenn koo xam ne nangu na ko gannaaw bu ñu leen sargalee ñu leen di woo ñoom waaye di woo opposition Sénégal bi yépp ndax opposition bi gën naa yaatu ñeenti candidat yi di yi tamit société civile ak képp koo xam ne démocratie ñor na ko ci senegal pour ñu gën a biral xeex bi pour que nguur gi fi nekk dellu delloo si xelam xam ni moomul dañ koo dénk te lu ñépp bokk nag dañ ko war di diisoo rawatina nag li nga xam ne mooy charte yi war a doxal élection fii ci senegal moo tax ñu leen di jaajëfal yéen ñépp di jaajëfal suñu mbokk presse bi ndax àndoon nañoo ñun ci campagne bi dund nañu jafe-jafe yi si ñun ak ñun yu leen di jaajëfal di leen gërëm ci seen taxawaay di sant yàlla nag bi mu ñu mayee ñu mun a daje fii tey ci jàmm ak salaam parce que jàmm ci la lépp xaj ay fani fan lu mat ñaar fukki fan wër nañu Sénégal la ñu gis bu ñu demee mooy askanu Sénégal kenn gënu leen nekk jàmbaar la ñu gis mooy askanu Sénégal sonn nañu ba fa sonn yem gis nañu jigéen ñi rawatina ci àll bi conditions yi ñuy dundee yi def ay kilomètres kilomètres pour am ndox bu ñu toggee waxatuma laa lu ñu arrosé seeni tool gis ndaw ñi coono ga ñu dëkkee ba foo dem dañ la naan gannaaw Jakarta amuñu leneen wala immigration clandestine gis problème yi nga xam ne sénégalais yi nañu jànkonte nañu moom waaye gis nañu it seen njàqare waaye ànd ak loolu lépp gis nañ ni askanu senegal askan bu am dignité la askan bu fegu la ci boppam askan la goo xam ne bu siggi la moo tax may wax man ak sama coalition mbégte bi ñu am bi ñu yàlla boole ñu bokk ci askan bu mel ni askanu Sénégal ci campagne bi gis nañ tertu yi ñu tertu fépp fu ñu jaar bokk nañu wala doon nañu benn candidat boo xam ne ba 3 heures du matin nit ñi dañ nañu toog mat ay junni junni di ñu xaar te duñ leen jox fukki dërëm digguñu leen dara ndul cofeel bi ñu am ci ñun askanu Sénégal daf ñoo woon joxeel goo xam ne nee naa kóolute la goo xam ne liñ leen di wax mooy bu soobee yàlla duñu mus a war kóolute googu waaye ci biir askan woowu dinaa sargal ndaw ñi ndaw Sénégal jàmbaar lañu jafe-jafe ñu dunde ñëpp xam nañ waaye su ñu amee élection boo xam ne taux de participation bi dem na donte nag ñoom def nañu lépp pour yàq taux de participation bi ñu am taux de participation boo xam ne kawe na li ñu daan am Sénégal daf ndaw ñi taxawaayu ndaw ñi moo ko waral loolu la muy firndeel mooy ndawu Sénégal dootuñu nangu ñu leen di def ndaw bu ñuy jëfandikoo di leen yónni ñuy xeex ci saaga di leen jox xaalis pour ñu nekk euh, bétail électoral waaye jël nañu ñoom seeni matuwaay ndax léegi dañoo bugg seen loxo dugg ci liy defar réew mi ñu leen di wax nag ni ñu leen di gërëm ci seen kóolute li ngeen ñu woon ci biir campagne bi dafa tooyal suñu xol di daw suñu gannaaw ay kilomètre kilomètre ay xale yu ndaw ñoo xam ne ñenn ñi sax amuñu woon amaguñu at yu ñu wote woon ñu cofeel bu mat sëkk ak yaakaar nag yi ngeen am ci ñun di leen wax ni seeni mag lañu seeni bàyyi lañu yéen nañu tax a di xeex te ñu leen ne bu leen xaddi bu leen découragé parce que la ca kanam moo dàq bu soobee yàlla na ngeen continuer laxasaayu takku la ngeen doon def na ngeen ko yokk bu doon benn na ngeen ci def fukk ndax projet bi ñoo ko bokk te ku xool ni élection yi bindoo xam ni yàlla xàllal nañu li ci des ñoo ko war a sàmmal suñu bopp ndax Sénégal kenn mënatu ko def wala kenn mënatu jëm fu sori ci Sénégal te bokkuñu si di jaajëfalit jigéen ñi ci seen taxawaay ndax jigéen mooy suñu yaay mooy suñu soxna mooy suñuy rakk ak suñuy mag te olof tubaab danaan jigéen dafa am sixième sens mooy am na lu muy yëg ci yaramam bu gisee loo xam ne leer na ko ni njëriñ la ci doomam te luy jëriñ ci doomam bu jëriñ ci moom kon seen taxawaay rafet na ñu ngi leen ci gërëm di leen sant di leen massawu coono yi ci li nga xam ne yéen koy dund ci ay jafe-jafe ci biir Sénégal di gërëm waa diaspora bi ndax waa diaspora bi dañ ñoo dañ ñoo sas ñun ndax seen taxawaay ci ñun benn yëkkati nañu seeni poos jàpp ci li ñuy liggéey ñoo ngi doog a gis ay citoyen yëkkati seen xaalis ne ñoom ñooy fay caution ñu ne deeti waaye ñu yëkkati seen xaalis yëkkati ay oto yëkkati lu ne def ko ci biir campagne bi yemul ci loolu ñu jël seeni matuwaay jël seeni téléphone woo seeni mbokk yu nekk fii wax ak ñoom yemul ci loolu ñenn ñi dagg seen paas jël congé ñëw fii ci réew mi baat campagne waaye yemul ci loolu ñu jox kon ñooñu amuñu seen fay ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax nag ñooñu ñëpp ci senegaal lañu gis ci senegaal yëpp Dakar ba Bignona Matam ba Tambacounda fépp fu ñu jaar ñu leen di wax ci fan yi di ñëw bu soobee yàlla dinañu dellu si fu ñu musoon a jaar ci benn tournée boo xam ne tournée nationale ak internationale ñëw sargal leen gërëm leen jaajëfal leen. gën a fasantewaat kóllëre gi nga xam ne bëgg senegal rek moo ko lal suñu diggante yéen waaye li ci ëpp solo taxañ li ñu war a taxañ pour lii ñu dëgmal ci senegal di wax tamit nii ñoo ngi ubbi suñu bunt diwoo woo sénégalais yëpp parce que bu ñu yegsee fii ci ñoo xam ne juróomi at ci gannaaw kenn xamu woon ci politique yéen rek la sénégalais yi ci seen kóolute waaye it ni ngeen xàmmee seen bopp ci li nga xam ne mooy suñu discours ak suñu programme ñuy woo Sénégalais yépp nag parce que mbir mi du mbirum Ousmane Sonko mbirum du mbirum coalition bi mbirum senegal la lii nga xam ne dëgmal nañ ko lii nga xam ne sumb nañ ko yàlla def ci sutura yoruñu ay milliards amuñu woon tur bu nit ñi xam euh, xeex bi métti na lu ne def nañ ko pour tilimal suñu der ak wax lu ne waaye yàlla suturaal ñu ba ñu yegg si fii may wax sénégalais bu nekk ak sénégalaise bu nekk ak foo munti bokk ci xeet ci waaso ci diine ba ci parti politique sax ñu lay wax ni fii sa place a ngi fi parce que ñun Sénégal moo ñu ñor ëllëg nag tey jii la ba ñuy door campagne bi dañ leen ne ñun xaaruñu changement parce que ñun ñooy changement ci boppam. nañu ngi woo Sénégal yëpp nag ñu ñëw ñu ànd ak ñun ci changement boobu parce que ñun on le devoir on le doit à nos enfants et nos petits mooy la ñuy def defuñu ko pour ñun waaye ñoo ngi koy def pour gone yi pour suñuy doom ak suñuy sët ñoo ngi leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu sutur yokk sutura ci Sénégal yokk fi jàmm ak yokk fi barke. ñoo ngi it euh, ci biir campagne bi. am nañ ci ay njàqare ay accident am na ci fële ci Casamance ci suñuy militant ba bakkan rot ci ñoo ngi dellu jaale ñi nga xam ne dal na leen euh, di leen féddalin suñu colère ci bépp fànn barki démb bi ñuy wax résultat yi fële ci usuy am na kenn koo xam ne mbégte bi ko jàpp ba yàlla jaarale foofu bakkanam rot ñoo ngi koy jaale it ay mbokkam te bu soobee yàlla dinañ fa dem jaale ji ci fan yi di ñëw ñi ci gaañu ak parti bu ñu bokk coalition bu ñu bokk ñu ngi ñaan yàlla fëgg seen bopp ni mu gën a gaawee may leen wér bu yaram di jaajëfal tamit particulièrement ñi nga xam ne yombal nañu lu bëree bëree bëri bëri ci campagne bi muy ñi yoroon suñu kaaraange muy waa sécurité bi seen liggéey rafet na te bu dul woon ñoom. defe naa campagne bi dina xaw a xajab trop kon ñu ngi leen di gërëm ci turu coalition bi yépp di leen wax ni amuñu seen fay loolu lañ ci bëggoon yokk di leen gërëm yéen ñëpp di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu Deux questions. Deux questions. Oui, oui deux questions. Une oui. Euh, euh question, euh, Président Sonko, euh, juste après votre déclaration, est-ce qu'on peut savoir si vous êtes maintenant euh, le représentant de l'opposition ou bien vous aspirez à l'être par rapport à votre statut de, de révélation politique euh, euh, est-ce que, selon vous, avec, euh, au des performances, êtes-vous prêt à incarner un peu le renouveau de l'opposition sénégalaise La deuxième question, sur l'affaire des 94 milliards, une vous étiez occupé par la campagne présidentielle, êtes-vous prêt à apporter des preuves à la justice pour que les Sénégalais qui aspirent à une indépendance et à une vérité puissent savoir les tenants et aboutissants de cette affaire de M. Diallo votre deuxième question est hors de propos, mais je vais y répondre quand même. Ce n'est pas l'objet du point de presse. Euh, vous avez dit, est-ce que je suis prêt à apporter des preuves à la justice J'ai saisi la J'attends que la justice me convoque. Ce n'est pas la justice qui m'a convoqué pour moi, pour des raisons qui leur est C'est moi qui ai saisi le procureur. Je suis à la disposition de la justice. Pour la première question, le statut d'un acteur politique est déterminé par l'électorat. Et l'électorat nous a naturellement donné un statut. Ça découle de ce qui est sorti de cette élection. Et nous n'avons même pas attendu cette élection pour assumer un statut d'opposant. ce qui est sorti de l'élection n'est que la conclusion, l'aboutissement d'une posture et d'une position ces cinq dernières années. Donc, c'est tout à fait naturel qu'aujourd'hui, nous aspirions, nous assumions un statut d'opposant et d'acteur politique de premier rang au Sénégal, à côté d'autres acteurs politiques. Je vous remercie.